asalaamaaleykum mbooloo mi maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ku ci nekk turam ak santam di leen rafetlu wax dëgg yàlla suñu ànd bii muy àndu nawle di àndu dëgg di àndu bëggante ak boole xol yi ndaxte fédération buñ ko defee ñun mouvement jigéen ñi taxaw fii ci Thiès ndax développement rek ñor ñu ñun mouvement yi ñu dajale di mouvement yu bari mat na 100 mouvement fu ne la waaye jóge pour ñëw rek bokk ci fédération bi ndax développement rek moo ñor jigéen ñi ah ñuy sant ñëpp képp ku fi teew ci suñu conférence bi ñu def samedi c'est une première ñoo ngi soog a def conférence fii ci femme développement Thiès yi ci ndigalu nag ak xelu ku ñuy wax imam Waly Seck bi nga xamante ni moo yore fondation ànd defar jikko yi muy nit ku rafet xalaat ku nga xamante ni nii dafa jóg pour defal ñu ay recherche de financement yu nga xamante ni ñun yépp jigéen yi daañu ci gis suñu bopp ndax ñun kat dañu yàgg ci développement te gisuñu benn ndimbal gisuñu benn appui mu metti lool ci ñun waaye yàlla mi dara tawul def ñu boole suñu doole boole suñu xol ànd rekk ba lii mën a taxaw tey ñoo ngi sant yàlla bu baax a baax nag bis bi nag yombuloon yombuloon dara ndaxte amuñu woon benn appui bi ñu taxawalee bis bi imaam li nekk di ci dox di ci wax ba yàlla def bis bi taxaw xawoon na metti mais yàlla moom fu ñu jafe woon rek sama borom taxaw na ci ak it mouvement yu baax yi nga xamante ni ñoom ñëpp dañu ñëw def ci seen loxo. ku ci mel ni Mamadou mbay mi nekk Francis dal ak Macky dem na ci ak xelam ak xolam ak dooleem ak ay mbooloom ak jigéenam yëpp ma toogal nii kenn ki mi ngi nii di soxna Khady seen mooy présidente mouvement dal ak Macky ki ci des mbay Mbaye sa moom mooy trésorière bi ñu jigéen ñu brave yu yu brave brave macha allah yal na yàlla may ñu yeggalee suñu sago. ba ñu jàllee ci loolu ñoo ngi sant ku ñuy wax Ousseynou juuf politicien bu mag bi xale bu am jom xale bu bëgg la président Macky Sall xale bu bëgg développement xale bu fonk jigéen ñi xale bi nga xamante ne moo ànd jigéen ñi pour rek ñu dem ci kanam alalam du ko fekkee dooloom du ko fekkee xelam du ko fekkee wax dëgg yàlla day bàyyi njabootam ndax jigéen ñi yàlla nañ ko yàlla fayal maa ngi ñaan Macky Sall na def xelam ci Ousseynou juuf muy ku léppam di dëgg àndul ak lenn caaxaan di doomi Thiès dëkk Thiès waa Thiès bëgg ko mu war a mën a tekki Thiès defe naa ni ko ànd ak Ousseynou Diouf fii ci cees président Macky Sall dina am ndam lu rëy rëy rëy ba mu fi dugalee Babacar Fall mu ñëw aussi def ci loxoom ba mat sëkk muy Thiès sur les rails moom it gàcce ngaalaama noppalu ba mu duggee Thiès ba léegi noppaluwul ci def lu baax bis bii ñu doon def samedi. def na ci loxoom taxaw na fa appuyé nañu wax dëgg yàlla def na li mu man yëpp yal nañ ko yàlla fayal te wax dëgg yàlla bu ñu jàppaloon dina metti trop ci ñun mais ñoom dañu taxaw ki may sant nag nga xamante ni bis bu ne maa ngi koy sant parce que bu politique neexee moom la muy monsieur Omar Youm yónni na DSM bien que dafa voyagé woon waaye DSM ñëw na ak ndimbalam ba ñu man cee génn maa koy sant di ko gërëm bu baaxa baaxa baax te xam ni bu mu xalaat dara ñoo koy appuyer lu ñu man maa ngi sant euh, Ablaye Dieye mi nga xamante ni moom fi nekkal Cheikh fii ci Thiès Ablaye Dieye di xale bu yaru bu baax bu seetaanul benn yoon waa Thiès Ablaye Dieye maa ngi lay ñaan nga ànd ak Ousseynou Diouf yéen a génération yéen a tolloo te Thiès rek moo leen ñor ni nga ñu appuyer ci suñu conférence bi ma ngi lay ñaan nga ànd ak Ousseynou Diouf ngeen taqaloo ngeen jàppoo ñun jigéen ñi dina leen jàppale encadré ba lu ngeen bëgg ngeen am ko jëf Ablaye Dieye gis nañ sa taxawaay gis nañ sa doole gis nañ sa mbooloo ñoo ngi sant soxna madame Ndiaye bi nga xamante ni moom nga yónni woon ak mbooloo mi mu àndal yépp sant nañ ko bu bah a baax a baax wax dëgg yàlla muy seena bu maar tata seena bu maar di suñ tata bu ah, bu baax ñoo ngi koy sant di ko gërëm ak mboolem mi àndal yëpp gis nañ seen taxawaay ñoo ngi sant aussi waa Touba yi nga xamante ni vingt vingt huit groupement la yu nga xamante ni ku ci na sa responsable ñëw na rien que pour jàpp ci bis bi di sant sëñ Maodo si mu sëñ Mbay Mansour ak soxna Xadi Gay soxnaam ñi nga xamante ni dañ fi ne ànd ak man ci bis bi ànd ak ñun ñëpp organisé woon bis bi ba bis bi yegg ñooñu kenn amul seen fay. sëriñ Maodo si ci waawoon mbooroo ak lépp lu ko war bàyyiwu ko ñépp la mobiliser mobilisation bu am doole mobilisation bu am doole la def taxaw pour jàppale ma man. sëñ Maodo moo ñu bëgg ñun jigéen ñi moom mooy suñu sëriñ jébbalu nañ ci tey bis li ki tey ci sëñ Maodo. conférence bi nag dañ ko def ndax booloo booloo rek moo taxoon conférence bi tax mu jóg biñ ko defee ngir booloo aussi. wax dëgg yàlla ba léegi gis nañ ci ni li ñu ci def lu am na solo ñoo ngi ñaan nag le président Macky Sall moom mi nga xamante ni moom moo fi ne mu jàppale ñu seet ku ñu mën a dimbali tàllal nañ loxo ñëpp ñun mouvement yëpp taxaw di groupement de femmes yi taxaw nii ñi ngi cuub ñi ngi ràbb ñi ngi ñaw ñi ngi euh, teinture ñi ngi wal ñi ngi jaay ay jus naturel ñun ñëpp ñoo ngi taxaw tàll président Macky Sall loxo te xam ni daa ñu ko jàppale ba fu ñu mën a yem parce que ñun président Macky Sall rek a ñu ñor. waaye ki waral coow li ku ne mooy bàyyi Sourahatu jenn maa ngi sant maître bu baax a baax a baax moom mi ma may possibilité ma mën a génn di politique. bi nga xamante ni loolu wéy na maa ngi bàyyi ak ñi nga xamante ni ñooy sama naatango parce que wax ji day gudd ku ci ne am na loo ci war a sànni. salaamaaleykum mbooloo mi nuyu naa ñëpp ku nekk ci turam ak santam maa ngi tudd Khady seen responsable de femme Thiès Ouest Mamadou Mbaye ànd déggoo liggéey dal ak Macky. di nuyu femme de développement yi nga xam ni ñoom ñoo nekk fii ñun nag li ñu def mooy dañoo sonn sonn ci naxe yi moo tax fi dañoo booloo di xàccandoo di dóorandoo ànd ak leader yi nga xam ni yi mel ni Mamadou mbay nga xam ni naxul jigéen ñi nekk Thiès di liggéey liggéey bu am solo di jàppale ci Macky sàll nit ki nag booy liggéey kuy sonn ku ne bëgg na waaw góor ñu bëgg nag Mamadou mbay Macky sàll gersu ko jàppale ko dooleel ko ndax mu ngi dooleel jigéen ñi du mbay mu ngi ci première age ba troisième age mu ngi ci jàng xale yi mu ngi yokk ci keesu jigéen ñi un million un million lu mu mën mu ngi koy def ñu bëgg nag euh, président gis sunu appel bi ñëw jàppale ñu ak jigéen ju mel ni madame Diène nga xam ni dafa yaatal ay mbiram boole femme de développement yépp mu nekk lu am solo asalaamaaleykum mbokki waa Thiès euh, maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp euh, di leen sant leen gërëm euh, di remercier di sant madame Diène mi nga xamante ne moo yaatal affaire bi ba ñu ñëpp xaj ci maa ngi profité ci occasion bi également di remercier bépp groupement bi nga xamante ne bàyyi woon ñoom ñëpp seen yitte ñëw wuy sinu ah du ma lim ndax bu ma limee damay juum te bëgguma kenn mer maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ah, di beral ngërëm nag. sunu xarit sunu sunu sunu sunu an leader Mamadou mbay ki nga xamante ni kenn dax ko jur ku dul jigéen waa Thiès di def lu rafet Thiès doon sëtu Madou Ki Ndiaye dëkk fii randu leen donc moom bu defee Thiès rek war na fee def te loolu mooy yéeneem ñi ngi koy ñaanal yéeneem boobu yàlla na ko yàlla eggale ba ñëpp gis ci seen bopp ndax mu ngi def lu rafet Thiès léegi xale yi sax dañ ko wutal woy ndax wiiri wiiri nañ ko tudde wiiri wiiri mooy ñi nga xamante ni moo mujjee jóg te gën a siiw donc loolu yàlla na ko yàlla jàppale ba lépp li nga xamante ne am na yéeneem fii ci Thiès mu def ko ñu ñëpp nu bokk ko jërëjëf. ñu ngi sant yàlla di julli si yonent bi sallallahu di sant suñu ñaari waajur may sant sama borom kër muy alaaji ngañ fay mu baax lool nekk si diine di si wax wax ju ju baax ju am solo maa ngi koy sant ndax fu ma jëm moo ma dooleel ñu ni dooleel jigéen. ndox dooley saxaar daay te man moo ma dooleel fay biram Penda Waagaan yal na yàlla guddal fanam te bàyyi ko si kanamu njaboot gi. di gërëm sama monsieur le maire nag Pape Diop monsieur le maire Pape Diop maire bu baax la bu disponible bu jàppale ay agent ñun ay agents municipal lañu waaye jaaxle nu dara bi ñu séddalee euh, maire yi. ñu yóbbu ñu mairie as lu nu jo jooyatunu dara dara dara dara lépp lu ñu bëgg rek Pape Diop ngi koy taxaw yal na yàlla dooleel ko ci barke yonent bi ndax nit bu la defalee lu baax na nga ko wax. di di suñu mouvement bi ñu nekkee ngii ñu nekk nag ngir ñu dimbali ñu jigéen yi muy mouvement dimbali jigéen. ñu ngi ñaan suñu borom tabaraka di ñaan mu jàppale ñu son excellence Macky Sall soxnaam Marème fay Sall mu jàppale ñu sunu mouvement bi ñun ku nu jàppale nu jàppale la amuñu doole nag waaye ku nu jàppale dinañ la jàppale te yàlla tax wasalaam. sunu mouvement bi ñu tàmbalee bootu ci gannaaw madame Diène Mati Ndiaye ñu ngi koy tàmbaleeg bisimilah rahmaani rahim yan nañ ko jeexaleeg alhamdulilah rabil alamin te sunu borom defal ñu si ndam mouvement bi nekk na mouvement bu am solo bu boot ay bépp groupement yu baree baree baree baree bari. jigéen yoo xamante ni am jom takku liggéey rek lañu xam jàppandoo xàccandoo dóorandoo artisan yaa ngi ci ñiy def agriculture a ngi ci ñiy ñaw a ngi ci ñiy def élevage a ngi ci jaaykatu cuuraay yaa ngi ci nappkat yaa ngi ci culture yaa ngi ci ah ñiy def fruits et légumes mi ngi ci ak céréales donc ñun de ku ñu jàppale rek lañu la ñuy wër te yaakaar naa ni ni ñuy yuuxu ca kaw di woo président Macky Sall ak soxna Marème Faye Sall mu baax mi son excellence waa Thiès ñoo ngi nii toog ñi jigéen yu am jom bëgg laa jàppale ñun nag ku ñu jàppale lañu soxla te soxla nañ la lool wéet nañ ci fi ñu nekk nekkewuñu lu dul booloo jàppale ku am sa fukk booleeg sa fukk moroom ñu dajaloo liggéey soxla nañ ñu nag ku ñu jàppale bu baax a baax ndax ñun bu ñu xoromul ci nii du saf ñun bu ñu xottilul góor ñi du ñu sol bu ñu ñawalul xale yi duñu sol gannaaw nak jigen nak mom, kenn mënu ko fàtte fenn fenn kon jigen du dess gannaaw ñi ngi ñaan yalla di woote ku ñu jappalé loolu dong moy suñu yitté ndax ñu sukkaliku jëm ca kanam ñun nak suñu wax yaakaar naa du sori ñun ay femme de développement la ñun ñi ngi yëngalo ci développement durable manam fi nga fi nga li ngeen gis ñi ñep ay femme de développement lañ ñi ñi ngi yëngu ci couture bi ñi ñi ngi yëngu ci commerce bi ñi ñi ngi yëngu ci autre c'est divers da manam ñun nak li ñuy wax moy di interpeller monsieur le président de la république et madame Mariam Faisal. Sall ñu ñëw jappalé parce que c'est pas facile c'est pas facile ñun ñi ngi dem ak sun propre moyen pour mëna développer ndax fiñ toll ni wessu nañ ci jamono ji ñuy wax femme objet fii ñun ñëpp dañuy dem ak suñu bopp fu góor di takke seenture di dem ñun ñu fi takk suñu sër ba mu dëgër di dem bëgguñu ñaan ma sàmb bëgguñu ñaan ma dem rien ko pour développer wasalaam. damay ñaaxaat rek autorité yi autorité surtout autorité Thiès yi monsieur Talla Sylla ñu ngi koy ñaan audience mu recevoir ñu ñun parce que soxla nañ ko lool ci cadre liggéey bi. autorité bépp autorité gouverneur soxla nañ ko bëgg nañ audience ndax nag dëkk nag boo fi nekkee tam loo yëngu yëngu yëngu maanaam booy dugg ci kër foog nga fëgg laaj ci borom kër gi noonu ñooñu bëgg nañ leen sunu wet jàppale ñu su waxuma sax sur le plan financier mais bu soxla nañ ay bunt yu tijjeeku loolu daal bu ñu ko amee tamit soxla nañ ko euh, ñu ngi remercier waa Thiès yëpp jeunes yi fàttewuñu leen ñoo ngi ci biir femmes Thiès yëpp. ñu ngi leen remercier 20 mai bi ça a été une réussite réussite totale ñëpp a ngi woote ñi ñan la ñëpp a ngi woote di féliciter mais nag suñuy action toujours ma wax ko yamul foofu ñoo ngi préparer beneen te dootuñu toogati fi mu ne nii jóg nañ ba pare dañuy dem ci kanam rek incha allah ci kattanu yàlla merci. man nag samay wax du ci bëri ndax li ma doon wax yépp xale yi wax nañ ko conférence bi fi mu dikkee dañ ko soxla. ndaxte ñun femme développement lañu mu dikk nag tombee quinzaine de la femme di bisu jigéen ñi ñu def ka ci ñi ngi sant tàllal ñëpp nag loxo ndaxte ñun ñii femme développement ñii ngi transformer def transformation fils de légume ñii di def transformation céréale te nag président nag dafa ne travailler te ñun fekk nañu ñuy travailler toujours travailler ñi ngi ci travailler ñi ngi ñaan Marème fay fondation Marème Faye Sall mosta taxaw cees bëgg na nu ñu taxawal ka Thiès Marème fay tàllal ñu loxo wuyu ñu dimbale nu ni muy dimbalee jigéen ñi ndaxte nag ñaari loxoy takk tubay waaye ñaari loxoy takk sër ñu ngi gërëm ñu ngi sant. comme li ñëpp wax rek laa wax ñuy gërëm sunu euh, présidente Adja njaay ndaxte jigéen yaakaar naa ne kenn toogatul ñun nag dañ caa raw ku nekk yaa ngi am ci luy yëngatu. ca sunu Cees gi dañ cee ñaan avancement li tax dañ cee ñaan avancement dañuy jaboot bëgguñoo ñaan bëgguñoo ñoo taxawaalu bëgg def lu naqar yàlla kon dañuy jàppoo liggéey yor sunuy avec sunuy mbootaay di cotiser di liggéey ci sunu biir di leblante di fay ku nekk am nga sa métier kon ñun dañoo yomba jàppale ñuy woo Macky sàll nag président de la république di la xamal ni la ñun ñoo ngi ci sa ginnaaw di la jàppale fii bu ñu sañoon nag egsi ci yow nga wutal ñu audience ñu ñëw seet si la nga wala nga euh, ñu jàppal la bés nga ñëw seet ñu nga xool li ñu lay liggéeyal fii ñu ngi lay liggéeyal yaak sa euh, soxna su baax soo su nga xam ne ñu ngi dégg li muy def ci dëkk bi vraiment ñu ko ci gërëm di ko sant ndax jigéen baax rek la moo ko war ci mi ngi koy def. man nag dama fay ñëw ci turu ñetti GIE ay groupement la ñu am benn groupement bu njëkk bi muy groupement booya kër Faat Diop Seck ak Fawad Wele ak Mbay Endong muy ñetti groupement yoo xamante nii ne damaa ñëw ci seen tur xam naa yëf yi ni mu demee la mais kon ñoom ñëpp dañuy àndandoo ñëw mais dañ ma doy loo ne ma demal nga waxal ñu nun nag yàgg na noo yëngu ci transformation lepp lo xamanteni yalla saxal nako dal ci luy ñor nun mën nañ ko liggéey ak céréale locale dañuy jaay tam di ñaw lu ne dal ñi ngi ci di dem tam nak suñu doole mais xam nga bo sañon lu yëngu rek am ku la ci gëna jappalé ndax ñun soxla nañu fra ndax tay bu fekkee da nga defal sa produit war ko yóbbu à l'étranger boo amul fra doo dem te nun amul fra beneen bi yi aussi da nga war am fra te nun fra moy suñu problème war nañu am bëgg nañ aussi ay partenaire sunu defaree suñu produit ba pare am ay partenaire yu ko jënd yoy yépp nak fra moy ndayam so amul fra mandara, man dara te fra dal ñun moy suñu problème ak itam ku ñu jàppale ndaxte li ngay def da bo sañon gis ku la ci jappalé ma ngi sant ñepp nak